أحببت رب العالمين مع الأمين والآمين وانغاد شكر الأمين بك الكلي وجسدي أحببت الحمد لله رب العالمين wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahabatihi alxurri almayamin wa ala xayri xadimihi dil xabli almatin wa ala man iqtafa athaarahum ila yawmi ddin mbokki jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu gannaaw bi nu santee sunu borom subhanahu wa taala julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam sant Acheikhul Xadim ñu ngi nuyu mbooloo mépp di ndokkeel ñëpp ci weeru tedd wi nga xam ne ci lu nekk di rajabul fard bokk ci shahrul xurum <coughs> weer wi nga xam ne ci la julli juróom wàccoon tax na eh, sëriñ Afia kon doon waxtaan ci tomb julli ñu bëgg dikk nag ci beneen tomb muy tomb tërbiya muy tomb bu yar yar nekk lu am solo ci lislaam bëgg waxe solo solo si mu am ak wàccuwaay bi mu am ci lislaam yar dafa doon lu am solo ndax mooy jumtukaay bi ñuy jëfandikoo ngir gindi doomu aadama ba teg ko ci kaw siraatal mustaqim ngir moom mën a texe àddina ak àlaxira ci yërmande sunu borom ak ci coobareem moo tax suma di wax ma sunu borom di wax ne wa nafsin wa ma sawwaaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha xad man zakkaaha wa xad man dassaaha bakkan bu nekk suñu borom daf koy bind sàkkal ko ñaari yoon yoonu texe ak yoonu texe yoon texe di waajal ko waajtaay woo xam ne <clears throat> su fekkee yar nañ ko yar yu mu laaj dafay tànn yoonu texe jaar ca te su ci jaaree texe rek lay dajal mu yoonu njub bakkan bi ñu yar njub lay tànn bu ca jaaree texe rek lay dajal waaye bakkan bi ñu sàggani kenn yaru ko <clears throat> mooy tànn yeneen yoon jaar ci su ci jaaree texe dëgg la dajal xad aflaha man zakkaha waaye wax qad xaaba man dassaaha yar na nekk lu am solo solo si mu am mën nañ koo xam ci buñ xoolee seetantal ñaar ki nga xam teg nañ ko ci aw yoon yar ko yarin wu jag bu mat sëkk teg ci wetam keneen kañu yeru sàgg ne ko buñ xoolee ñoom ñaar ci seen dox nekk seen dund danga ci mën a xamee am solo ak yar ak ñàkk solo ak ñàkk yar yar doon lu am solo ngir mooy jural nit ki mu mën a yëg boppam ci ne ci ne juboon ak boppam yëg ne it juboon ak ñi muy jaxasoo yëg ne juboon ak boroomam itam subhanahu wa la ndax ki amul yar faw waxtu nekk dafay yedd boppam ndax ki xasuloon ab jullit lu mu sàggan sàggan boo ko ne baaxoo mu mer kon day mel ne ñàkk a baax xëy na gën a ca moom yëg gi mu koy yëg tam naqari te mënu koo saafara loola mooy yedd gi mu yedd boppam ñamu jaxasoo di faaw dañ ko yedd kon la koy may mu jubóog boppam jubóog borom jubóog ñamu jaxasoo ñëpp mooy yar ko yaru lislaam boo bu sotti bu ma sëkk lay doon moo tax suñu borom di wax ne fa aqim wajhaka li diini xanifa fitratallahi fatarnasa aleyha laa tabdila xalqa zaalika diinul qayyim walaakinna aksara naas laa ya'lamuun muniibiina mu wattaquu wa aqiimu salaata wa laa takuunu minal wa di soññ yonent ak jullit ñi ci ñu taxaw temm jublu yàlla ci diina ji nga xam ne diina ju sell jëm na jox muy nekk muy fitra bi yàlla bind nit ndax ni ku nekk yàlla ko bind ci fitra mooy dalay bind ci ak set bi ngay judd indeewar indeewar yu benn taq-taq kon bépp tâche bu am ci nit ki rek kon ca yar ba la ca yar ba la mu ne kon bu ñu soppi ne bind bi yàlla boobu muy set gi mu doon bindee loolu mooy diine ju jub ji nga xam ne mooy ju sell bi waaye ci nit ñi xamuñu ko waaye nañu dellu ci seen borom te di ko ragal te taxawal julli te bañ a bokk ñi koy bokkale bañ a bokk ñi nga xam ne kenn ku nekk da ngay barak sa dara rek jàpp ne ku néew ci li nga nekk nekku ci dara euh, loolu muy par par doog yi nga xam moo doon xew loolu lépp ñàkk yar moo koy indi kon lañ ci yéege mooy gannaaw suñu ku nekk ci ak set la kon mooy njub la namm ci yow loolu ko firndeel yéen saa sama waxoon ne kullu mawludin yuladu aw yunassiraanihi aw yumajjisaanihi ku judd ku wicc la bind ci ak njub la judd waaye waajur ya muy fekk si wala yarkat ya muy fekk si ñoo koy soppi ab nasaraan wala yahud wala majus waaye su dee doon jullit bu sellit ba tey waajur ñoo koy def kon day mel nit kon nu mel yar moo ko ni def loolu dafay wane kon am solo gi yar am solo solo soosu mu làmboon a tax na mu nekk warugar wu yàlla gàll ci loose ñi nga xam ne ñoom lañu ko wakiil te mooy képp ko xam ne am nga masuliya maanaam njaboot mi ngi ci sa kanam man maanaam am am nga mbooloo moo yor moo xam waajur nga moo xam ab yarkat nga moo xam jàngalekat nga képp koo xam daal da ngay responsabiliser mbooloo ñu ne ñu ne ñu ne ci sa loxo waru gar yar dañ da ko gàll ci sa doos ñañ ko gàll na su fekkee taxaw nañ ca temm nañ ca war a taxawee wala ñu sàggane ko it su ëllëgee faaw def na leen ko laaj moo tax su di wax ne yaa ayyuhal lazina yéen ñi yàlla na ngeen fegal seen bopp ak seen njaboot sawara fegal sa bopp ak sa njaboot sawara nag gënaa tawféexi suñu borom mooy nit ki ñu yar ko jëmbat ci ab xolam ak njub jëmbat ci ab xolam jikko ju rafet jëmbat ci xolam mu nekk ko jariñ koy jariñ te bañ a lor jëmbat ci xolam mu nekk ko maandu tey bañ a ci yoon wa tekk ci ak njabootam yar leen ca nàmpatal leen ci kon mooy tegu na ci yoonu musal boppam ak ak njabootam ci sawar moo tax tër bii kon nekk lu warugar woo xam ne dañ ko gàll ci loos yi ñu ko yàlla waral ci ñoom te ëllëg ñu di leen ko laaj su fekkee taxaw nañ ca nañ ca war a taxawee ñu am ca payuk seen borom su fekkee sàggane woon nañ ko ñu am ci daanub seen borom subhanahu wa taala moo tax su ma ne waxifuhum innahum mas'ulun kon ñu xam ne kon yar ko nu warugar la wu diis woo xam ne gàll nañ ko ci képp koo xam ne eh, yilif nga benn ba ñaar mbaa mbooloo yar moom nekk warugar ci ñoom ñoo ñu kon gannaaw bu fekkente ne dañ koo gàll aw nit te suñ ca taxawee ñu fay leen ca suñ ko deful ñu daan leen ca kon dafay tegte am solo bu am solo suñ delloo ci njàngale Sëriñ Tuubaa dañ fekk muy wane ay tegtal yu am solo yi wane yitteel gi nga xam ne yar yitteel na ko su demee ci téere bi yitteel nax nax joxe daal xaaj yi nga xam ne ci wàllug yar ak teggin rek la ko jëmale ma ngi cay wane ne nit moom donte ma ngay topp yàlla naam waaye làmboowul ab yar toppam googee du ko jural ak texe du ko jural njariñ te defe naa koy topp yàlla ku nekk eh, teexee bokk na lañ ci sàkk jar jariñu bokk na lañ ci sàkk kon fekkee da ngay topp yàlla te jëriñu woo ci ak texe kon mooy topp ko amul njariñ mu ne waaye ne kii topp yàlla te amul lambawuti ay teggin lambawuti ay ab yar neen toppam googu du ci des na ko des na ci ab yool aku ak texe aku jariñu id kullu man bi gayrihi raama tibaa fa innahu yuhramu fawzan wa intifaa wax na itam teggin walla ab yar su nekkee ci nit ki su fekkee dafay nit ku réer yar bi dana nëbbu réer ba kenn du ko xam su fekkee dafa bokk ci askan wu nawloo wut waaye làmboon na ab yar yar ba dana nëbbu rale ba kenn du ko xam ndax ki yaru moom ami teggin jikkoy rafet ku ko gis ku nekk da jàpp ne fu baax la bokk ndax jikkoy sang yenn na ci moom Eh, teyit mooy ngeen ji lépp nit ki fàggu mbaa mu di ko denc mbaa mu di ko jar ñu àddina ak alaxira wa huwa si jaala xusnal adabi yox fii jahalatan wa xubxa nasabi waxe ne wa huwa fi daarini xayru kanzi wa xayru ma'tazza bihi doisi nit ki itam lépp lu mu am lu mu mën di am lu mën a doon moo xam dafa bari xam-xam bañ di ko yem ci xam-xam ba wala dafa bokk ci yax bu rëy wala boog dafa am alal wala lu dafa am darja lu mën a am rek li fekk làmboowut ay teggin amut ab yar loolee moom du ko jariñoo kon yar ba tey dafay jural murit bi ñu yar mu am nuurul maarifat billaahi taala leeru xam yàlla te yar mooy laabal xol ba man caa tàbbi su ca tàbbeen moo ko ca saxal ba dut yi génn loolu Sëñ Tuubaa di wax nag li annahul munawwirul janaani kama yuqarribu ilal jinaani yarit dafay sàmm ab der ba kenn du ko mën a yàq bu fekkee danga ko ta takkaayo ba ña nga dëkkal ñépp xam la ca képp ko fa ñëwati bëgg a yàq sab der ñoom ñoo lay njëkk faxasal sab der ndax la lu rafet lañ xam ci yow rek wax te bu sab der seetee ci nit ñi ngir bu yar noonu lay seete fa yàlla ba noonu la lay sori la sawara wa yujibul madha ladal jiraani kama yuba'idu ani niiraani loolu lépp kon dafay tegtale am solo gi yar am solo te la muy jur mooy al adabul mardi yi sëriñ bi bind ko fa nekk leeral ko fa loolu tax na lislaam yitte woo lool mbirum yar ci mboolem ay jàngaleem ba mën nañoo wax ne léppi lislaam dafa dikk ngir yar léppi lislaam dafa dikk ngir yar ndax lépp lu lislaam digle buñ ko setantalee looy defar jikko la lu yéwénal xolu doomu aadama la lu koy sellal la buñ ko tàmbalee ci liimaan mi nga xam ne mooy jiitu nga xam ne balaa kenn doon ab jullit ba ne laa sant leen liimaan am ba noppi nga gëm yàlla ba noppi man ne ne gëm yàlla ci boppam yar nit rek ko ko taxoon a jóg ndax ngëm su nekkee ci nit ki te muy dëgg dootu aaja ñu di ko wutal ab sàmm bu naa ko jaaral fii mbaabul jaar fii dale nekk sàmm boppam boo xam ne dafay doon ko ragal yàlla koo xam ne du def mukk lu juunu du ko waxit tey axaadis yu bari root nañ yu firndeel loolu di wone jeexit ji nga xam ne gëm yàlla daf koy def ci nit bokk na ci bokk na ci xadis yu saas di wax ne ëmul kenn kuy njaalo lu dul ne ba muy njaalo gëm yàlla nekkut ci moom amul kenn kuy naan sàngara lu dul ba mu koy naan ba mu koy naan gëm yàlla nekkut ci moom amul kenn koy sàcc lu ne ba mu koy def ngëm yàlla nekku ci moom laa yazni azani xiina yazni wa huwa mu'min wala yasriq asaariqu xiina yasriq wa mu'min buñ jëlee ponk lislaam yi itam nga xam ne moo tënk lislaam di juróom juróom yépp bu ci ne man nga ne yar nit dong ko taxoon a jóg suñ tàmbalee ci julli suñu ba newoon na inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar julli dafay dox diggante nit ak jëf lu ñaaw dox diggante ba jëf lu ñu sib te loolu doo nga tax ñu yar nit nit tax ñu ko yar mooy bëgg dootu def lu ñaaw dootu wax lu ñaaw gannaaw julli da ko def ci nit kon mooy julli day yar nit waaye ci sàrtu nag nga jox julli la mu laaj la mu laaj ci ragal yàlla la mu laaj ci toroxlu la mu laaj ci waajtaay ak lamu lamb lam laaj lépp nga def ko julli doo dox si diggante ak loola lakin nada bi sababil xushu'i la bi ghayrihi faxsha wa na'in malala la Sëriñ Tuubaa wax loolu tax na yu saasam doon ko niiroo leel ak eh, ak dëkk ku dex man ndax bu fekkoon kenn jën dafa am ak dex ci buntu këram ne des bis bu ne mu sangu ci juróom yoon ma ndax dana deseeti ab tiir ñu ne ko ko moom dootu dese mu ko ab tiir mooy leen noonu la julli juróom mel da leen raxas ba nga set wicc ci mboolem jikkoy ñaaw raxas lay ba nga set wicc ci cay bakkaar suñ jëlee asaka ak mboolem xeeti infaaq fi sabilillahi yépp ba tey mel na ne dafa dikk ngir yar nit ndax joxe jaamu yàlla gu am solo guy laabal xol te di ko yar di ca génne melokaanu nay di ca génne melokaanu melokaanu bëggee di ci génne melokaanu jiite sa njariña bopp rek ci njariña mbooloo mi waaye daf la yar ci ak tab yar la ci yéene ñëpp la nga yéene sa bopp yar la ci itam loo am bokk ko ñëpp moo tax suñu doom wax ni yéen sax ne ko xud min amwaalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha yow Muhammad na nga jël ala na nga jël asaka ci àll julli ñi ndax dana sellal seeni xol dana ko laabal dana ko fët ba mu set kon infaax kon nga gis ne kon dafay defar xol di ko sell di ko laabal di ca tàbbal jikko yu rafet su ñëwee ci koor it ba tey atte boobu laam mooy sum doon ne yaa ayyuha alladina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun yéen ñi yàlla dañoo farataal ci yéen koor ni ñu ko farataal ci ñi fi jiitoon lépp ngir ngeen ragal yàlla nit buñ ko rag buñ ko yar bëgg mu ragal yàllaa tax kon su ne koor dafa def ragal yàlla ci nit kon mooy koor dafa yar nit ragal yàlla googu koor ni muy yari nit di yéwénal ab xolam ba def ca ragal yàlla ba muy bàyyi xel boroomam nga xam ne waxtu nekk dafay teewlu boroomam saa su nekk ak waxtu nekk ba nga xam ne ak wéet ak wéet la la yemale ci ci ci ci jëf ndax bi nga xamee dugg nga ci sam néeg tëju ne damaa woor kenn gisu la nga mënoon a lekk mënoon naan soo génneen dama woor kenn du ko weddi waaye bi nga nekk ci sa biir néeg yëg gi nga yéeg ne bon donte ñi nit ñi gisu la am na ko lay muraaxab koo xam ne sa dara du ko rëcc alimun bi zaati sudur bàyyi xel gi ngay bàyyi xel yàlla noonu mooy dem ba jëmbat ragal ci sa xol ba nga xam ne wéete ak wéetu ci nga yemale boo wéetee doo def la ñaaw boo wéetlu ko itam doo def la ñaaw doo ko wax doo ko jëf kon noonu la koor di defee ragal yàlla ci xolub doomu aadama te ragal yàlla nag mooy nit ki di bàyyi xel boromam bàyyi xel goo xam ne da koy fuglu di ko yëg ci wax mu nekk ba tax mu yóbbu ko ci jëfe ndigal yi bàyyi tere yi koor da koy yar nag ci ragal yàlla googu yi su fekkee ragal na yàlla daal di nekk sàmm boppam bi nga xam ne dootu aaju ñu koy soññ di ko wan aw yoon wala na ko jaar fii wala bàyyi fii ndax la ko war da koy xamte na ca xaj itam nooy la deme alxajju ashhurun maalumaatun fa man farada fihinna alxajja fala fi lxajj xaj ay waxtu la yu ma am mu ne ki xas ci xaj nag bu mu waxati lu ñaaw bu mu jëfati lu ñaaw fala rafasa wala fusuqa wala jida wala jidaala fi lay digal am luñ la cay moytuloo am fuñ la ca tegloo sa tànk lu caage ne jamono jooju rek la bu jeexee mu jeex waaye tàggatu la yéen la digal ci koor yëpp ci ay jaam yàlla dañoo bëgg nga tàggatu ci ba miin ko ba bu koor gi yàlla mën koo tàmm ba ngay xajit yéen lay digal ne moytu lii dañoo bëgg nga tàmm ko ba xaj gi jeexee ba nga mën ko wéel waaye ni ko nag jamono jooju rek la war bu jeexee mu jeex ni ko ñu bari fase kon mboolem ibaadaat yëpp moog ci nu muy jeexitale jeexit ju mu bàyyi ci xolum nit su fekkee def na ko te sellal ko dañ fekk alxuraan di digal bi muy bi muy digal soxna Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak ahlu bayt ni nga xam ne lañ war lañ war lañ war a sàmmoon ci ay teggin yépp ba muy jeexal wax jëlam ko jeexal mooy innamaa yuriidu llaahu liyuthiba ankum rijiisa ahlal bayt wa yutahhirakum tathiiraa yii leen yàlla digal lépp ko bu gisee mu ne ko digalee julloo ci leen lu weesu laabal seeni xol seetal ko ba ngeen nekk ñu set wicc kon lépp lu yàlla digle ku li ne kon luy seetal xol la lu koy laabal la lu koy lu koy lu koy defar la kon bu ko defee eh, ñu xam ne kon àtte boobu la yar am solo si la làmboo ni ko noonu àtte sharia yi itam yépp dañ ko tër ngir yar nit su lislaam ne bu nit jëlee lu moomu nañu dagg loxoom su nit njaaloo nañ ko caw su fekkente ne sangi wut su sange woon nañ ko raj mu Eh, kii xas jaambur bu jigéen bu sangewu nañ ko dóor yooyu yëpp lislaam da ko def ngir ñoŋal bakkan yi ak ñoŋal alal yi mooy nit ki jub tegu caw yoon ndax la ngay bëgg a def boo xalaatee lii la ci fekk mën naa tax nga dellu ci gannaaw kon yëpp yar moo tax lislaam tëral ko yar moom na nekk lu am solo kon lu am wàccuwaay woo xam ne Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moom ci moom la ñu aju mel na liggéeyam bépp ci loolu la ko jëmale ndax ndigal lam jotoon ci rabbi asxaabaka bil himmati na nga tërbiya na nga yar sa mbooloo ci yitte ju kawe ba yitteem yépp mu jëmale woon ko ci moo ko yóbboon ci àll yi ndaa gor dëkk yi ndaa sanc lépp ngir mën a wéet ak ñi ñu war a defar ba ñu sori coow li sori yàq gi ba lañ bëgg a jëma ci ñoom def ko ci ñoom ndax yar dafa am yu mu aaje jumtukaay yu mu aaje yoo xam ne bu ko bu amul rek yar du mën jumtukaay yooyee ba ci njëkk bii atun bii atun saalixa moo ci jiitu mooy bii a boo xam ne mooy jamono environnement boo xam ne fa nga nekk la lay wër lañ bëgg a def ci yow doo fa gis lu may loola doo fa dégg lu may loola doo fa dund lu may loola su ko dee def ko ci yow day yomb bu gisee léegi yar jafe mooy environnement yi ñu dund moo baaxul ndax lii la war lépp adduna yi kese la donte sax fexe nga ba sa kër nga tëral nga wutul ko aw tëralin wooy tëralin wooy yar sa njaboot loo yendoo def ci xale bu nga ne su génnee ci mbedd mbedd bi yàqaat lépp kon war a ñu daa gor àll yi di toj di ko toj di sanc ay dëkk ngir wéet ak ñoom ba def ci ñoom lañu la nga bëgg def ci ñoom ba ca topp mooy xutwatun xasana roykaay baax ndax yàlla nit dañ ko bind coroy roy faaw roy te su royut lu baax dan roy leneen te la muy gis mbaakam gis lay roy moo tax Sëriñ Tuubaa doon bi muy am jot moom ci jëmbof moo daane ci seen biir ñu di ko gis di ko roy waaye waaye itam mu defaraale mbooloo moo xam ne defar na leen ba ñu jag ba mel ni war a mel mu boole na mbooloo ngir ñëw ñu defar mbooloo moom ñu nekk royukaay mbooloo moom loolu moo indi seexal ci yoon wi seexal mooy defar na la ba nga jag mu boole la mbooloo ngir lu baax la mu def def ko mbooloo loolu mu liggéey ci liggéey bu rëy sëriñ bi kon daanee leen yar ci wute leen bii a ah, bu dëppoog liñ bëgg a def ci ñoom daanee leen wute leen xutuwa xasana bu du man ci boobu muy ku mu defar daanee leen yar ci jaamu yàlla ndax jaamu yàlla mooy li tax ñu bind nit ki moo tax ñu di ko ci kaw suuf yàlla doyu ko lenn lu may loola nga xam ne dañ daa boole li ñuy jàng ñu di ko jëfe ci kanam moom muy gis ñu deen ci yar di leen tàggat ba nga xam ne la ngay jàng boo fa jógee faw danga ko da nga koy jëfe gannaaw bu leen yare ci xam-xam ndax xam-xam moo jiitu bu leen yar ci xam ndax xam-xam mooy laltaay bi nga xam ne lenn munta mat lenn munta sotti te laltaay wuñ ko xam-xam waaye xam-xam mu deen yar ci ñu di ko jëfe waaye jëmbat ci seen xol ay teggin ak jikko ju rafet eh, tàggat leen itam ci nangoo liggéey ndax yooyu moo ëmb moo ëmb lislaam muy xam-xam jaamu yàlla jikko ju rafet ak nangoo liggéey nga xam ne yooyu ci leen dee tàggat ba nga xam ne dañu doon ñu am jom ñoo xam ne fu ñu ma fu ñu ma nekk fu nekk lawar dañuy fexe ba di dunde lu lew di man di jaamu jaam yàlla gu sell loolu ci la leen yar eh, ñi mu yar ci la leen yar boo demee ci mbindee itam loolu nga ci fekk kon ñu ngi tënk foofu yàlla suñu ba mboole dimbale moo leen defal tawfiq xiir nu ci xiir nu ci ak njub te saxal nu ci te def nu dëgg dëgg taalibe Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa nangu nu suñu taalibe wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Allahu rabbul alamin salla ala hadin حتى آفات أن لم يرى قد أو لن يرى لمن آيات سيارة إلا المهدي مبوسا قد قاد خير المنزلين يبي خير المرسل وبشهاب الأجمال علمة خير البشر ديني يا حب الله ما وبلا شيء دخما لي والي المناجمة بلا أذن أو كدار نفع لخير الله وما يوعد دلتلال من للجنان بالهلال خد خداني بالخدر سبب كوني يا خديمه من عادى مسوني يا به أني مكدري رد ساقا أوله يوب باخ يوهل لمنخويب لخير ساتي والجيوب سنت حني تكدوري